bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu doon topp léegi mbir nii kenn ku nekk ci dajeeg santam di leen ziare ci koor gi di leen bal ak di leen balu ak eh, dafa am lu ñu publier léegi lu ma tudd inel danaa ci suñu page Facebook bi mu jëm ci arab nag xaw a jafe ndax dafa jëm ci wàllu astronomie te ñu bari mënuñoo jàng arab ñu bëggoon jaar ci jaar bu gàtt rek maanaam tënk ko rek ngir ñoom ñu mën cee jariñ li ñuy wax ci gàttal rek dafa benn phénomène boo xam ne dafa war a am fan yii tàmbali na sax daanaka ci alxames ci daal ci lay gën a ràññiku juróom benn fan ci weeru koor gi ci ñi ñu mujj woon ñi koy wax musaamatatu shams ala Touba muy jàkkaarloo jant bi ak ñi dëkk Touba tegu ci seen i kaw yi bopp su boobaa nag bu fekkonte ne ab pot lamp la wala mu di soorool te fekk jub na nañ ko tabaxee jub na dangay gis ne sax buñ demee ba zawal jot maanaam jëmmi une heure une jëm une ci wàllu waxtu yu euh, ñëpp bokk waxtu wi nga xam ne mooy waxtu yu jóge Angleterre da ngay séen su boobaa euh, yooyu ma tudd yëpp benn benn ci amati takk ndeer waaw loolu ma publié woon photo yi mu àndal sax euh, bu dee montage bi sëñ Mbàkke bu sa defoon fii ci Guédé da gis ne takk ndeer bi jeex na ñu koy wax almusaamatatu léeg-léeg nag day am màkkatal mukarrama tiim kaaba gi su boobaa nag ay masalay jàkk ji ndax jublu na penko gi am solo da cay juddu loolu waxtaanee woon nañ ko ba mu xewee Màkka ànd ak sunu waajur al oustaz sëñ Cheikh Guèye sëñ Cheikh Awa Balla boo duggee ci YouTube boo bindee heure sénégalais noonu nañ ko kii bu boobaa da nga gis waxtaan woowee defe naa dafa def heure sénégalais daa di Cheikhul Khadim loolu mooy adresse bi kon ku ci bëgg lu gën a yaatu mën ngaa dellu foofu loolu nag Màkka la xewoon dafa xew ci Touba nag na mi xewee ca Màkka nag at mi ñaari yoon noonu lay xewee fii ci Touba it at mi ñaari yoon kese benn bi mi ngi am ci weeru avril benn mi ngi am ci weeru juillet bii ñu jëm kon bii nga xam ne nag mooy xew ci avril ci lañ toll. avril boobu may wax nag avril la boo xam ne moom la ci ci al ashhur al falaaxiya al falaaxiya muy weeri baykat yi te suñ mbokk yi dëkk chimal afriqiya muy tàmbalee Mauritanie wala sax Maroc Algérie Tuunus wala Tunisie Libi ba Égypte ñu ñëpp al ashhur al amazighiya lañ koy wax mag ñu njëkk ñu nekkoon fii daan yëngu ci ñoom sëñ Mbàkke Buso astronomie ñoom daan ko wax al ashhur al falaax yi ñoom ci la ñuy liggéeyee duñ liggéey ci weeru jullit ñi wala weeru tubaab yi loolu lépp lu dafa am lu ko waral léegi nag jant bu tiimee nit faw daf koy féete tuuti càmmoñam wala ndeyjooram waaye nag mu dikk ba tiim bopp bi directement nga xam ne nit ki du amati takkandeer loolu bariwul lu mu am ñaareel léegi nag kon suñ bàkk bi si loolu waxoon léegi nag wax gi mu ko wax Sénégal ba mu ko waxee màkk moom am na yu bari bari yu ci judd waaye bu ko waxee fii ci Sénégal maanaam yàlla dafa def euh, su boobaa bokk na ci yiñ ciy ràññiku euh, almiswalatu chamsiya muy cadran solaire yi nga xam ne moom la ñuy wax di ko def ci jàkkay murid yi lépp nga xam ne ci la ñuy bu boobaa bis boobu du am dañuy dem sukkandiku ci euh, nu mu tudd calendrier ak ak yu demee noonu ak téere daal waaye bis boobu moom kenn du am noddukat yi duñ mën a régler sax comme ni ma ko waxee léegi loolu bokk na ci li ci juddoo lañ ci mën a jànge ñaari bi ma des na ci jàng it euh, sëñ Mbàkke Buso déq gi mu am ci lim wax lu mu yàgg-yàgg nga gis jamono du ko dindi mukk lii mi ngi ko wax 1902 boobaak léegi téeméeri at ak fukk ak juróom-ñett bi sëñ Tuubaa jógee ci Gabon rek ba mu dikk nekk ci wetam ci Daarul Manaan la la la waxoon loolu su ngeen demee ci téere bi mu tuddee kayfiyatul kayfiyatul istidlalil qibla li ahli alxutri sénégal yi ca la junj yooyu noonu wane ne musaamatut ak ci dëkk bu mën a doon la lay dimbali nga xam ko rek mën nga yàgg topp jant bi mu ne yàlla defal nañu tawfiq mu baax mi ba ñun topp nañ ko fii ci daadul manaan maanaam Touba booba waxagul waxi ñëw gedde sax te gedde 1918 lañ ko sànc boobaag na ne kon ko ba gis ne al musaamatut mi ngi am ci 17 avril ci weeru al ashur al falaaxiya war a tolloog ren ji incha allahu juróom benn fan ci weeru ramadan ci ñu mujj woor comme Sénégal Pakistan saltanatu Amman ak réew yu demee noonu muy tolloog alxames ba tey léegi nag dafa wax ne lu bis boobu nag foo fekk mooy doon fukkeelu bis bi nga xam burju sawru dugg burju sawru ak fawr mooy eh, yëkk woowu ngeen di gis ñu di ko faral di eh, disin comme ni ñuy waxee naan escorpion nangam eh, ak xamal ak yu demee noonu ak fawr benn la ci bu amee fukki fan mii ngi teru woon fan yële ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru baraxlu tolloo woon ak juróom-ñaari fan ci avril bi ci des bi nga xam ne al ashuru salaahiya la tolloo woon ak ñaar fukki fan ci avril bi ñëpp xam boobu la léegi nag euh, dafa waxoon bu ñu fukki fan ak benn su boobaa kon booy compter da gis ne alxames bi ñu jëm war a doon. léegi kon leçon bi ñu njëkk jàkke mooy képp ku nekk Touba yow bant bi ngay régler ñu di ko wax almise wala achamchi wala cadran solaire bis boobu doo gis takk ndeer sa jëmmi bopp sax boo nee dégg te taxaw wala lépp lu jub bis boobu loolu du am takk ndeer ci bi zawal di jot maanaam midi ci temps localu Sénégal waxuma nag temps bii nga xam ne moom la waa dina bépp bokk nga xam ne boobaa une heure dana jot bu booba une heure jot waaw teewul nag boo ko bëggee xam ci temps boobu nga gën a min yow bu une jotee rek xool seetlu ko fan yi ñu ngi koy seetlu daanaka kert des du fa des loolu moom mujjee publier sax boo naa ci photo boo xam ne man maa ko publier maa ko photo sama bopp daanaka kert du fa des kon daanaka loolu tàmbali na kon njariñ li ci njëkk mooy li ci njëkk yéemi mooy loolu de gis kat li ci toppaat nag mooy sëñ Touba ci boppam dafa am lu mu santoon sëñ Bakam sa ci Touba daf ko waxoon ne ko maanaam téeri fiq yi niñ mel nga xam ne booy jàng ñeneen la boo demee alqahira wala Misr mu Égypte masjidul fustat fuqahaa yi dañ daan wax naa eh, am nañu dem ba ne juróom-ñett fukki saxaaba wala yu bëree bëri ba ko Abdullahi wala Omar ibn al-As sance saxaaba yu bëri dañ ko fekke julli ñu ne képp ku dugg ci dëkk dëkk duggati ci dëkk ba nag sooy julli bëggee julli nekk foofu jullit ngay doon mujtahid mujtahid mooy koo xam ne day jéem a def effort boppam ngir xam fan da penku ci féete penku wér ñu ne dox jël ko ñu ne gaa kilifa yi fa teewoon dindil lañ la coono boobu boo demee xayrawaan ci Tunisie loolu lañ lay wax ba tey jàkk ju mag jooju saxaaba yi julle woon ku fa nekk mujtahid jullitul ngay doon mujtahid doonal mu xalit mu xalit mooy kuy roy léegi nag capital yooyu nga xam ne fu civilisation islamique yàgg la sëñ Touba loolu la bëggoon ci Touba yi te ñu bari bàyyiwuñ ko xel mu santoon ci sëñ Bakk su liggéey bu mag boo xam ne moom la doon def noonu mu bëgg képp ku nekkati fii wala ku fi duggati problème mu penk moom dootoo ko am dootoo doon mukk kuy jéem a def ijtihaad waaye mu xàlleen leen doon koy roy waaye doo jéem a def sa effort bopp ngir xam penk boobu noonu mu def ci effort lii nag bokk na ci ba tey yooyu moom la topp mu def ci yeneen effort yoo xam ne comme ni ngeen ko xamee def na ci ay bayit da nga dégg mu naan li zillika sallil asfa min yëf fu bayriin ila tayihi in kunta fii maa yali tuuba loolu mooy sa takkandeer buñ amee ci février ci weeri bii di al ashhur al falaahi bokk février bi ñu xam buñ ci fukki fan ñaar ba katiñ ci am fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeent eh, saa soo bëggee xam penk bu takk sa jotee taxawal sa takkandel nam jëm noonu ay am na ci yeneen bayit yoo xamante ne si indi naa ko ci loolu ma tasaare loolu ma publier da gis bu ñëwee ba nga xam ne fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci weeru boo taxawee fekk yoor yoor jot na gis ni sa takkandel jublu noonu ay penku def na ci ay bayit yu bañ a bañ a bañ indi naa ko ci kii boobu noonu damay bañ vidéo bi yàgg loolu nag ni wane capital islamique booy dugg di ko fa fekk ci àddina kon muy liggéey boo xam ne sëñ Tuubaa santoon na ko yëmuñ ci waaye ki nga xam ne mooy ab taawam di sëñ Mouhamed Bousso gis ngeen am na xaside spécial boo xam ne defoon na ko képp ku fi nekk boo ko mokkalee yow sax dootu del bu waxtu julli jotee da koy xam ca saasa ci Touba ci biir Touba. loolu nag dafa bokk ci lu sëñ Tuubaa joxe woon ndigal jox ko sëñ Mbàkke Buso mu sonn ca lool ni mu joxe woon ndigal ci jumaa ji ni mu joxe woon ndigal ci Touba doon dëkk boo xamante ne si comme ni mu mel ak yam wax ma lowul fa seen yëpp lii tax sëñ Mbàkke Buso liggéey ci bu am solo boo xam ne ndigal la woon mu réussir ko lool euh, jamono joo gis nit dana def dara ñu toog tuuti ay fanweeri at dong xool ko ndekk lam doon wax ci jamonoom dong la valable woon waaye nekkul ne toujours waaye lii maa ngi lay wax léegi ne la téeméeri at ak fukk ak juróom-ñett ba mu ko waxee léegi te fi ni nii wér gi eh, dem na dayoo loolu nag waxtaan woowu lu yaatu la kiñ ciy seqal incha allah mooy sëñ suñu mag sëriñ Sërif Bousso ibnu sëriñ Gédé ibnu alxaaji sëriñ Njaañ Bousso moom sëñ Mbàkke Bousso àllarba bii ñu jëm buñ dogee ba noppi ci site bi ñuy wax alxadimiya danañ ci def waxtaan wu yaatu bu soobee yàlla danañ jàllaale it ci këyitu yi ngeen gis ñu li ko def muy jógee Gédé di ci jàngale kañ la ñuy dog kañ la ñuy xëdd wér gi mu wér li tax mu mat di bàyyi xel li tax léeg-léegi bul dugg ci google mun la waxtu sàngam la waxtu di jant bi di so rek nga jàpp ca te fekk la muy wax jant bu sax moom mooy daanaka genn wàll gi gisatuñ ko rek foofu lay tàmbalee wax ni jant bi sona te fekk xam ngeen fuqaha yi nanguwuñ loolu ñoom li ñu wax jant ba gisatuñ ko lépp ak question yu bëree bëri yoo xam ne jëm na ci sëñ Mbàkke Buso rek ci anam gi waaye lii daal mooy sabab bi moom loolu laa doon bind ci arab mbokk yi nga xam ne nag dañoo mënta lire arab moo tax ma def leen as vidéo gàtt ngeen ñu mën jariñu incha allahu taala nag comme ni ma ko waxee àllarba الخمس لعبة كورة wala alal ba mbir mi mi ngi xew alxames waaye incha allah waxtaan wi dañ koy def jiital nga xam ne alal ba buñ dogee ba noppi rek bu soobee yàlla site bi ñëw alxadimiya dana ko teg incha allahu taala kon maa ngi jégalu ci guddal gi lii dama ko defoon rek ngir mbokk yi nga xam ne ñoo ngi doon sàkku di laaj di laaj ci liñ doon wax ci arab lan la ndax xaw naa jafe tuuti loolu rek la woon jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu